am loo xam ne dama ko dégg keroog benn euh, kilifa ci benn bokk yaakaar di tontu opposition ne waaw na ngeen nanguween nanguwoon ngeen présidentielle ak parenage lu tax ngeen koy bañ tey waaw bu fekkee ne jàkkaarloo nga ku la ëpp doole ne la man nii laay doxalee par force doxalul yoon ah di ko mën a nangu waaye di ko xeex itam jëm ko fi jële loolu duñ ci génn parrainage xeex nañ ko mi ngi ko doon fàttali sànq fii ci manifestation la jëkk war a jaar assemblée nationale ñu ko mënuñu am ñu ñu bàyyi loolu xeex nañ ko devant les tribunaux sénégalais mënuñu ko am ñu dem nag ci foo xam ne magistrat bu ñuy am lu ñu jàpp du ñu seet Mademba du ñu set Masamba te nag ñu war a fàttali ne Sénégal yónni woon na fa avocat opposition yónni avocat ku ne wax magistrat indépendant africain CEDEAO mais attention État Sénégal nekkuloo ci yoon nekkuloo ci yoon ci naka droit universel de libre participation aux élections parrainage dindi na ko te muy droit de l'homme maanaam droit boo xam ne suñu constitution ñun Sénégal ci loolu la jëkkee ça fait partie ni ko tubaab bi di waxee du bloc de constitutionnalité Déclaration universelle des droits de l'homme, Charte africaine des droits de l'homme et du peuple Macky Sall loolu yépp jël lii waaw loolu neen ko nangu na dañ koy xeex di des di ko xeex te nangu ko ndax waru dund ndax xalaat ne am na wàll boo xam ne suñu wall la ci defar Sénégal indi jàmm ci Sénégal dañ koy continuer di ko dox waaye nag dañ koy xeex xeex ci naka am na ku ko posé ku posé question mais jiital ci lii ngeen am ci wàll nag adduna yépp xam ne Sénégal bi nga xam ne bii jàpp nañu ne démocratie la mais du benn démocratie ana démocratie booy violer un droit universel de droit de l'homme de participer librement aux élections ana loola ñeen war a itam ni ko waxee tey ci ñuy xamal àdduna bi ne li xew feneen mën na fi xew ndax jaay doole li àdduna nanguwul Afrique ñu ngi koy bañ léegi attention moo indi Guinée moo indi Mali moo indi Burkina Faso ñu toog rek jàpp ne Sénégal moom euh, mucc na ba abadan la nañu doxal yoon teg lépp ci yoon du dinañ bind nag président de la république ministre de l'intérieur itam jot di ko fàttali ne mu ngi wor yoonu Sénégal di wor yoon boo xam ne jóge na ca CEDEAO mais loolu gàcce la ci président de l'Union africaine boo xam ne bii mu ngi toog di ko tiitaroo CEDEAO yebal ko fa CEDEAO naan ko lii ngay doxalee du yoon mu ne maa ngi cay des gàcce la ci suñu réew ba noppi nag kumba am ndey kumba amul ndey bàcc am baay bàcc amul baay qu'est-ce que ça veut dire Mali barke Dembo Ndiaye ñu taxaw ne dañ koy sanctionné CEDEAO nañ ko sanctionné ndax li fa am lañu ragal mu am feneen askan wu jóg ne doy na nag sonn nañu dañu doxal suñu transition indi leneen ñu daal di jël sanction sandele délai wax nañu immédiatement camion yi nga xam ne ñu ngi jógee dakaar nekk ci yoon di dem maal yi sax mënuñu mënatuñu jàll sandele délai tout de boobu ne yow ni ngay doxalee du yoon dindi ko juróom benn weer lañ la may 29 octobre dañ ko waroon a dindi 28 sax 28 octobre 2021 mu ne maa tey dama ciy des kon am na solo àdduna xam li xew fii Union africaine CEDEAO xam itam ni Macky Sall di doxale te loolu lii bokk na ci waaye am na itam yeneen jéego yoo xam ne ñu ngi koy dox wax naa leen ko sànq dinañ bind ñu ñu war a bind ba ñu ba ñu yëg loolu waaw mais fu ñu gañee ci fichier boo xam ne njuuj njaaj a ngi ci njuuj njaaj nag mooy suñu spécialité hein fii fii laa mas gis président la république bu naan bàyyi naa njuuj njaaj <laughs> Sénégal bàyyi naa njuuj njaaj publiquement ñëpp di ko dégg ana valeur waaye opposition ci biir njuuj njaajam dem ba gagné li wóor ba wóor bu lépp tegu woon ci yoon kenn kenn du waxati Macky Sall te waxuma ko tey ah du toog du toog ndax parrainage nañu jàpp ne ndegem dafa di loo xam ne kenn mënu ko jëf ni mu ko génnee kenn mënu ko jëf c'est pas possible inapplicable mënul ne lenn rek ay mbëbëtu parrainage muy génnee kii génne kii perteloo kii perteloo kële ma gañe fii ma gañe fële parrainage ñu ngi génn ci 2018 ndax bañoon deuxième tour te deuxième tour bu fi amoon fichier bu baax fichier bu bon day day daal loolu rekk la loolu rekk la